asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquraanul karim Ali Imran TV lay ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquraanul karim suñu dund moo ñu nettali la xewoon démb nett li lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haada alquraan yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhaanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam audu billahi samii alalim min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim rabbana laka alhamdu kama yanbagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp fu ne ci àddina bi ñu la leen nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax di leen safoo di leen ñaanal borom subhaanahu wa taala mu defal leen jàmm foo leen mën a ne ci àddina bi bu bi ñu santee suñu buur yàlla subhaanahu wa taala di ko kañ di ko màggal di julli ci ki nga xam ne mooy ngën ci mbindeef ak ci ay waa këram ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo wéy ci yoonam ba ilaa yawmi diin di euh, vraiment am kontante si daje ak yéen encore si suñu émission bi nga xam ne moom mooy at tadabbur muy la méditation si tubaab wala settantal ci wolof baatu settantal maanaam téere ji dañuy ànd di ko jàngat di xool aaya yeeg xuruuf yeeg kalimaat yeeg saar yeeg ahzaab yi lépp lu ci nekk rek nga xam ne dafa ko dafa dafa nekk euh, en rapport avec le livre muy euh, Coran bi muy alquran bi nga xam ne yàlla moom la wàccee si ñun rek ñu jéem ko xereñee jàngat ko setantal ko waxtaanee ko euh, wax dëgg yàlla loolu nag ñi siy ànd ak ki nga xam ne moom mooy suñu xarit suñu sëriñ suñu mag muy sëñ Mbàkke silla nga xam ne tey dafa tukki tukki bu gàtt waaye du yàgg mu dellu siwaat moo tax gisu leen ko ci plateau bi tey kon mbokk yi émission bi ñu ngi ko tuddee ak tadabbur ak tadabbur bu ñu ko waxee mooy settantal comme ni ñu ko waxee sànq parce que yàlla moo ñu ko sant li nga xam ne nag yàlla moo ñu ko sant nag moom sant moom jëf rek moom moo ci war a topp ndax dañu wax al amru yu fiidul wujub loolu la usul yu nii wax ñi nga xam dañuy yëngatu ci wàllu usul usulul fiq ñu ne al amru yu fiidul wujub bu ñu xasee ba ne defal rek yàlla ne wa aqimu salaata na taxawal julli rek kon yu fiidul wujub kon li muy tekki mooy dañ ko war a lu war la kon yàlla dafa daf ñoo xamal ni bokk na ci li tax mu wàccee alquranul karim mooy daf ko wàccee ngir ñu settantal ko ngir ñu méditer ko moo tax muy wax ci suratu Saad di wax ne baada audu billahi min alsheytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim kitaabun anzalnaahu ilayka mubarakun liyaddabbaru آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب mu ne ab téere ngi nii boo xam ne dama ko wàccee ci yow yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ab téere ngi ba tey dama ko wàccee ci yow yow sëñ Abdoulaye Ba yow ab téere ngi nii encore yow mi nga xam ne yow yaa ci jot di ko xool waaye li tax mu wàccee ko ci yow mooy ngir ñu médite ay aayam maanaam ñu settantal ko kon alquran dafa wàcc ngir ñu settantal ko duñ ko jàng nii comme yeneen téere yi wala mboolem xeetu bind niñ koy jànge jàngu littérature waaw ma euh, lecture littéraire boo xam da ngay lire rek di dem wala génne si ay question réponse ak yooyu déedéet mais alquran dañuy toog di ko méditer di ko xool di ko settantal di ko xereñee di si def ay diagnostic looloo tax mu wàcc waaye nag li ko jiitu mooy mubaarakun dafa ànd ak barke maanaam lépp loo ciy def rek da lay jural ab barke day barkeel waxtu bi nga xam ne moom nga ciy def day barkeel tamit mboole mu xeetu liggéey boo xam ne yaa ngi ci wala nga bàyyi ko di nekk ci waar wii nii te alquranul karim euh, waral ko kon moo tax mubaarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul albaab loolu li ñuy wax ay euh, ay mbir yu baree bari bi si njëkk mooy bokk na ci sooy tadabbur alquran maanaam soo koy settantal di ko médité da lay may benn capacité bu mag a mag a mag ci wàllu xel maanaam capacité spirituelle boo xam ne bu extraordinaire beneen bi dalay lay jokkale ak borom bi subhaanahu wa taala mooy yow foo mën a nekk rek yaa ngi ànd ak borom bi subhaanahu wa ndax yaa ngi méditer yaa ngi jàngat yaa ngi tadabbur maanaam yaa ngi settantal ay wax ay waxam ay kàddoom kon loolu dalay may maiyatullah yàlla di nekk ak yow saa su ne dalay yëkkati àggal la niveau boo xam ne aussi tamit li ci gën a yéeme moom mooy comme ni ñuy wax ne nit ki moom bu yàggee si dara rek mu am ay facteurs yu bari yoo xam ne day ubbeeku ci kanamam ci mbir moomule kon yàlla tamit noonu la koy ubbilee ay bunt yu bari yoo xamante ni bi amu ko woon balaa muy toll foofu tax dalay may li ñuy wax xaasilu zaka boobu moom la ñuy wax quotient intellectuel nga xam ne ñun borom subhaanahu wa lef ñoo bind jox ñu xel parce que alquran xel yi lay fëgg waaw na yatadabbaruna alquran te tadabbur xel moo koy def xel mooy def tadabbur kon xel moomu ñu yàlla jox muy koom bi nga xam ne moo gën a foor ci lu ñu am ndax xel mi fii ak mi nga yow rek moom lépp loo xam ne taklif la rek dañ la koy teg waaye bu fa neewulee rek lépp loo xam ne taklif la li nga war a def nga xam ni ne nit ki dafa war a julli dafa war a woor dafa war a def nangama sàng day fekk mu wér mu ànd ak xel waaye bu fekkee xel ma nekku fa moom <laughs> wasafihu xatta yafi <laughs> moom ngoog ki nga xam ne moom xel ma dafa dem nag xatta yafiqa rek ba mu demee bu demee nag ba wér nag boobaa nag ñu mun koo considérer ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy euh, sant di tere wala ñoom la ñuy responsabiliser ci dara kon moo tax conscience bi nga xam ne moom la ñu am ñun muy xel mi nga xam ne yàlla jox nañu ko nga xam ne conscience euh, xel moom dafa rëy yàlla jël cerveau bi nga xam ne ci la nekk mu def ci ay cellules yu bare bari boroom xam-xam yi di wax ne lu ëpp 10 milliards cellules ñoom ñoo composé cerveau nga xam ne benn cellule bu nekk rek am na rôle bu muy joué am na fonction am na lu tax mu jóg kon nag cellule yooyu nga xam ne ñu ngi nelaw suñu biir nag alquran daf koy yee booy tadabur alquran lu kam dañuy yeewu dañuy nekk ci service boobu dañ lay yóbbu ci ay dimension yu baree bari ay bilsu dimension lañ lay yóbbu yóbbu la ci ay majaalaat yu baree bari bari bari yoo xamante ni bi yu wuute la comme ni alxuraan di waxee yow mu dugg ci nature bi dugg ci kaw nu bi dugg ci doomu aadama dugg ci lu baax dugg ci lu bon maanaam cest à mu ne lii moo baax lii moo bon dugg ci mbindum asamaan bin dugg ci mbindum doomu aadama dugg ci wàllu jaamu yàlla julli wax ci bokkaale fii wax ci lekk ji wax ci naan bi wax ci wax ci lu ne kon alquran ci dimension yooyu la lay yóbbu nekk dalay def benn nit koo xamante ni ku multidimensionnel ngay doon kon conscience boobu nga xam ne moom moo nekk si ñun ba tey euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ni 10 pour cent rek moom moo jote yeewu 10 pour cent waaye li des yëpp 90 pour cent bi yëpp mi ngi nelaw kon ñun kañ lañ koy yee moo tax dañuy ne ñi weesu 10 pour cent bi ñoom ñooy nekk ci niveau technologie yeeg yu mel noonu ndax yooyu à partir de 12 pour cent si la si la jëm kon beneen bi moom mooy alqudra ala tafkir ak taxliil yi mooy alquran suñ koy settantal ñu koy médité di ko jàngat def ñuy may ñu am la capacité de raisonnement d' analyse maanaam ñu am benn euh, force boo xam ne daf ñuy permettre ñu mën a am ay analyse maanaam am ay jàngat yu wér yu extraordinaire ay jàngat yoo xamante ni bi yu yu yu yu mën a jëriñ lay doon ci lépp loo xamante ni moom la ñuy def taxaw seetlu wala taxawaay bu ñu mën a am kon moo tax Euh, alquran médité ko settantal ko dafa am solo lool lool lool euh, ñi ngi doon waxtaane ci aaya bi nga xam ne moom mooy allahu nazzala ahsana alhadithi kitaaban mutashaabihan kon wàccum alquran boobu nga xam ne yàlla mi ngi ne kitaabun anzalnaahu ilayka ab téere ngi nii wàccee naa ko ci yow yow Seydina Muhammad wàccee naa ko ci yéen yéen xeetu Seydina Muhammad ngir ngeen médité ko ngir ngeen jàngat ko mu nekk téere joo xamante ne bi li ci yàlla def ci ay mbir kenn xamul nu mu toll nga xam ne kenn mënu koo jàngat ba jeexal ko mu nekk téere boo xam ne toujours rek dafay da ngay da ngay da nga ciy gis ne lii ci yàlla rek la mun a bàyyeekoo moo tax suñu borom subhanahu wa taala muy wax ci suratu yunus ne wa ma kaana hada al quranu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladi bayna yadayh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 moo ko moo ko wàcceel boppam suñu borom subhaanahu wa taala moom moo ko détaayal boppam suñu borom subhaanahu wa taala moom moo ko faram-fàcceel boppam ci moom la jóge moo tax buñ koy jàngat di jàngat xuruuf yi naan aaya nangam boo compté xuruuf yi da lay jox atu nangam wala da lay jox euh, nombre nangam limu nangam loolu yëpp borom mi moom moo ko nosee noonu moom moo ko kiwee noonu comme niñ ko waxee keroog ne alquranu karim euh, aaya bi nga xam ne mi ngi wax ci wàccam mooy ahsanal xadis boobu aaya boobu mooy aaya 23 numéro 23 ci suratu Zumar nga xam ne suratu Zumar mooy surat numéro 39 kon alquran at ci durant ñaata at la wàcc mi ngi wàcc ci durant 23 ans aaya bii nag di wax ci wàccum alquranul karim te pare di xamale ne mooy waxtaan bu dàq ci waxtaan yi mu nekk 23e aaya ci saar wi waaye yemul foofu ahsanal xadis baatu xadiis nga xam ne mooy waxtaan mooy récit wala mu nekk parole nga xam ne mi ngi répété wu ci alquranul karim lu toll ni limu maanaa euh, at yi nga xam ne ci la alquraanul karim wàcc waaye li ci gën a yéeme ba tey mooy aaya bi nga xam ne moom mooy aaya numéro 23 aussi ci suratul baqara nga xam ne mooy surat numéro de moom it tamit suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhadaakum min dunillah وادعوا شهداءكم من دون الله in kuntum saadiqin kon bu fekkente ne da am ba léegi dut am sikki sàkk ci li ma wàcce sama jaam jii nii ah kon nag ñu ngi noonu loolu nag buñ ko xoolee encore mu nekk ci aaya numéro 23 encore ci suratul baqara beneen bi moom mooy boo xoolee suratul baqara ni mu ubbeekoo ak suratu ali ni mu ubbeekoo mi ngi wax ci wàccum téere bi toujours di junj alquran di wax ci wàccum alquranul karim mu nekk surat numéro deux ak surat numéro 3 mu jox la 23 ba tey ci nombre maanaam ay euh, sa euh, année yi nga xam ne ci la alquranul karim wàcc kon moo tax xereñe boobu ñu koy xereñe wala nañ koy jàngatee noonu di ko di ko di ko di ko di si def ay analyse di si def ay taxaw seetlu yiñ ci jëlee mooy toujours def ñuy wan ne wa ma kaana hada alquranu an yuftara min dunillah waaw alquran bii ni mënta jóge ci keneen ku dul borom subhaanahu wa moo tax borom bi tëkku na ñi teg jinne tëkku na képp koo xam ne alquran bi concerné na la lan na nga indi lu mel ni alquranul karim wala na indi lu mel ni benn saar ci alquranul karim wala fukki saar wala yu mel noonu waaye boobu balee kenn mënu ko ndax la daje ci alquran mënta daje ci benn téere moo tax mbokk yi alquran a nekk suñu kanam la ci borom subhaanahu wa taala wax na euh, li mu ci wax bari na lool waaye bu ñu continuer aaju toujours mi ngi joxaat beneen taxaw bi ñuy wax al ittisaal bi nga xam ne mooy al matlub bayn al aqli wal qalb maanaam communication bi nga xam ne moom moo war a jaar moo war a am diggante xel ak xol ndax xel ak xol dañoo war a communiquer bu ñu communiquer normal rek courant bi jàll rek boobaa nag lan la ñuy lan la ñuy may mooy summa taliilu juluuduhum wa quluubuhum ila dikrillah bu ñu tadabure alxuraan ñu ñu ñu settantal ko ñu méditer ko rek waaw te xel mi ma doon wax sànq mooy mooy mooy settantal alxuraanul karim ndax xel euh, moom mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy mën a dimbali doomu aadama ci lu bëree bari dañuy ne yow xanaa amoo xel xanaa doo xalaat waaw parce que am na noo doxalee loo xam ne dañuy jàpp ne boo jëfandikoo woon sa xel rek xëy na doo ci dugg kon nag balaa xol di fas faw xol ana xel analyser ba pare su analyser ba pare xol doog a fas moo tax yenn saa yi ñiy moytulu nit maanaam ñiy lu ko nit ki muy fas dara ci xolam balaa xelam di ko analyser moo tax même borom subhaanahu wataala bu lay woo ci gëm ko day fëgg xel bi wax xel yi lay waxal mu naan afala taaqiluun borom bi subhaanahu wa taala toujours mi ngi wax ak borom xel yi li uli albaab li qawmin yatafakkaruun li ulil nuha li ulil absaar li qawmin yasmauun li qawmin yatafakkaruun li allahum yatadakkaruun kon mi ngi wax ak xel toujours léegi nag xel moom moom bu jëlee mbir ma ba jàngat ko ba pare nag ba gis ne lii kat moom lu yenu maanaa la lu logique la xol dog ko fas doog koo téye moo tax borom subhaanahu wa taala di wax ci alquranul karim di wax ni qul innama aidukum bi waxida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru moo xam li ma leen di woo woo ni man yeneen salaa sallam yàlla di ko wax euh, du lenn loo xam ne da ngeen war a ñëw rek accepté ko jël ah déedéet mais toog leen ngeen def seen xalaat ngeen utiliser seen xel seen maayin ngeen jëfandikoo seen maayin xalaat xool ndax ba xam lii ma leen wax dëgg loolu dëgg logique na wala logiqueul loolu nag moo xam par kenn moo koy def moo xam par ñaar la moo xam mbooloo moo koy def kon alquran bii nii toujours mi ngi ñuy woo ci tadabbur suñu borom subhaanahu wa taala di wax fi ñuy jeexale ne afala yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi gayri illahi la wajaduu fihi ixtilaafan kathira suñu borom subhaanahu wa taala muy waxaat ba tey ne afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha suñu borom di waxaat ba tey ne afalam yaddabbaru alqawla am jaahum ma lam yati abaahum al awwalin nag borom bi moo ñuy woo ñun ñëpp moo ñuy euh, wax dëgg yàlla appel ñun ñëpp pour lan pour ñu jàngat téeréem bi kon ci loolu la ñuy woowee mboolem xeetu jullit mboolem xeetu borom xam-xam yi ñëpp ñu ànd ñuy tadabbur ñuy méditer ñuy settantal téere borom subhanahu wa taala kon nag fi ñuy jeexalee moom mooy fexeel ba yow en tant que jullit bés bu nekk boo xëyee mosal tuuti ci alquranul karim mosal tuuti même bu dee benn kudd sax jël ko ci alquranul karim bul xeeb loolu mooy noo ñàkk-ñàkk jot même bu dee benn aaya sax jàng ko ci téere borom subhanahu wa taala noo ñàkk-ñàkk jot balaa nga tëdd mosal tuuti nga yeew ak moom tëdd ak moom bu ko defee alquran daal di barkeel sa dund kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun wa haada kitaabun mubaarakun yàlla nañu borom subhanahu wa taala defal dëgg ak topp di nuyu mbokk yëpp di ziare ñëpp di euh, remercier suñu sëriñ suñu xarit Sëñ si la bu baax a baax moom mi nga xam ne moom la ñu wutu fii tey dafa nekk si tukki waaye dina ñëw du yàgg incha allah di jaajëfal suñu technicien yi bu baax di nuyu ki nga xam ne moom mooy kilifa kër gi aussi mooy al oustaz Alioune Sall na ko yàlla sàmm wéral ay cëram guddal ay fanam wasallallahu ala sayyidina muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tollook settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquraanul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquraanul karim suñu dund moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nara a xew ëllëg inna haada al quraan yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhaanahu ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam